ni moom moo gën a mën a symboliser euh, répression bi am tey mooy xëy na Cheikh Omar Diagne moom musoo koo jàpp ci dara nee nga toujours ay kàddoom nga koy dox te loolu moom mooy délit d'opinion mënoo ni dara loo xamante ni def na ko te li mooy nag ñetteel yoon yoo xam ne mu ngi koy def kaso boo ko dindee ci dundam ci ñaari at yi mujj ça fukki weer ak ñeent yoo xam ne mu ngi ko tëdd kaso koo xam ne il ne représente ni une a pour sécurité réew mi représenté wuñ menace ci deniers publics représenté wuñ aucune menace situation yi yëpp mu nekk loo xam ne musul am fii ay détenus yu ñuy yu ñuy yu nekk candidat yu nekk ci kaso mu ngi soog a am su Macky Sall donc c'est parce que moom dafa am ay actes yu mu posé ak débat bu mu posé ak yoon bu mu xàll yoon bu mu xàll mooy yoonu dëgg dëgg nag dafa tegu dëgg gu mag gi diine ñeme ko ànd ceeg xam-xam te loolu da koy jox benn posture contre le système